Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di gërëm leen sant. di gërëm képp koo xam yaa ngi suivre euh, Sénégal Afrique un peu partout à travers le monde euh, di gërëm aussi kilifa diine yi muy tarixa yi nekk biir Sénégal yépp muy suñu mbokku tijaan yi mbokku xaadir yi mbokku murit yi euh, waa Ceneba Ceneba yi waa Ñaseen yi kunta kunta di si weer bu sell bi di weeru koor tey si la ñuy gëstu muy weer bu sell euh, weer bu weer bu bari yërmande euh, dañu war di booloo bokk ndey bokk baay te Sénégal li ñu fi gis bariwul réew yu koy def di génne ay mburum koor tey fépp foo dem ministre bi dañu gis ne suñu mbokku mur yi euh, ñu ngi si diwaan yi biir gox goxaan yi di def ay liggéey am solo jël ay café ay mburu meew tàndarma di ko séddale miskin bi nga xam ne dañu néew doole loolu du tey Sénégal yàgg na jamono yi euh, suñu maam yi fi nekkoon loolu mooy suñu gaal te ñu koy conjuguer si biir réew mi di ñëwaat tuuti que weeru koor boo xoolee weer bu bari yërmande lu koy indiwaat tey am na fi ñoo xam tey amoon lu ñu lu lu lu ñu lu ñu jógee koor mais kër boo dugg tey doom problème boobu euh, mën nañ la si xewal bi gis ngeen ni euh, Sénégal bi ñu tay ñu sonn mu du Dakar rek fépp foo dem muy ba Diourbel Touba fépp foo dem rek ñu ngi taxaw askan bi euh, muy si biir daara yi si biir gox yi fépp ngir Sénégal yi bañ a may jafe-jafe weeru koor bu ñëwee gis ngeen. taalibe yi taxawaayu si mbedd yi ñoom xale yi def tànku leen ay xale yoo xam ne dañu jugee am ñu jugee ay Guinée Bissau jugee dans la sous-région ñëpp Sénégal la ñuy jub si mooy réew moo xam ni ku fi ñëw ñu teral la euh, bu même bu weeru koor dafa nekk réewum jàmm réewum teral la ñun loolu la ñu xam tey moom la ñu xam ëllëg am na benn ay gis ngeen weeru koor di am ay conférence religieuse si gox si quartier yi di delluwaat nit ñi si seen borom ak seen euh, mbirum diine mooy lislaam ak delluwaat delluwaat leen si kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga si mbokk oustaz yi euh, conférencier yi boo xoolee rek démb ku mel ni oustaz Mohamed Mbaye euh, fële ca golf fële ci cité des nations unies dafa jàng yu mag jàng yoo xam ni ay jigéen ay mag delluwaat euh, delluwaat euh, seen bopp si borom bi si yonent bi ay jigéen ñoo xam ne wàccee kaamil euh, ku nekk jël sa thème di waraate di sensibiliser nit ñi loolu mooy diine l'islam gis ngeen bu ñu paree ñu defoon leen ak ay médaille d'or loolu di ne gàcce ngaalama jigéenu Nations Unies xam ne Oustaz Mbaye moo leen jiite dem ba def liggéey bu mucc ay ñëpp a ngi koy rafetlu loolu mooy Sénégal jigéen ñi nga xam ne tey ñi ngi jublu si biiru diine l'islam loolu dañ koy rafetlu taxawaay bu am solo la mooy li ñu gis barki dama fële yi Nations nga xam ne Oustaz Mbaye moo koy jiite di jàngale ay jigéen leen delloo si diine l'islam euh, di tari ay alxuraan loolu mooy Sénégal loolu mooy diine l'islam di waxaat ak Sénégalais yi euh, weeru koor la ñu nekk weeru koor euh, képp ngay def war na war a ànd muy weeru sutura di weer bu baax di weeru yërmande bu fekkee ne da ngay lekk si mbedd kooku dañ koy ñaw ñu koy faral fii si biir weeru koor bii nekk nii euh, dafa nekk weer boo xam ni lépp lay def par ànd ñu mën a tëj baal yi ñu mën a tëj euh, yenn mbumbe yi yenn xawaare bë benn weer boo xam rek ngir yàlla euh, fukki fukki weer ak ñaar borom bi benn weer ne pour ñu jàmm ko loolu war nañ ko mën a Euh, fulal ko jox ko nga dem muy weeru koor euh, ni weeru koor boo xoolee jamono yoon ci sallallahu alayhi wa sallam jamono yi Muhammad jamono yi saaba yi ñoom dañ daan di nemmeeku nit ñi di seeti miskin yi di waxtaan ak ñoom leen delloo ci seen borom loolu mooy weeru koor weeru koor way gërëma lël euh, ni ñu war a dem si armée yi dem ziare néew yi leen ñaanal leen nga dem si hôpitaux yi ñaanal ñi tawat yàlla euh, jégal leen yàlla taxaw leen loolu mooy weeru koor mais weeru koor euh, yi yi am ni Sénégal nii jamono yi passé daaw neex na daawaa ci jël parce que Dakar dafa nekk euh, bërëb boo xam ni weeru koor méttiwu fi foo dugg lekk foo dem ni ñaa yi wàcce ay kaamil si jàkk yi si jumaa yi mais boo boo demoon tey si yenn diwaan yenn région yi mi ngi tànn jër mais Dakar laa gis ni que nit ñaa ngi euh, passé koor amul benn gàllankoor nañu jàppante ngir yàlla rek tax nañu bokk ndey nañu bokk bàyyi nañu delloo suñu xel si yàlla delloo suñu xel si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy Sénégal bu ñu ko defee réew mi dina gën a jëm kanam te dafa nekk réewum diine réewum lislaam ay suñuy maam ñoo ko fi ñoo ko fi sanc ñoo ko fi bàyyi lu mel ni El Hadj Malick Sy tey boo demoon tey Tiwaawan ñuy wàcc ay kaamil ñuy wàcc ñuy wàcc euh, ay ay alxuraan nga dem Tuubaa xasara ñu jolli alxuraan yaa ngi doy fépp ba si jàkk yi euh, même ba heure ndogu bu sax ni ñu ndogoo pare dañuy nit ñi dañuy jaamu borom ba ay vingt deux heures vingt trois heures ba naafila ni ñaa ngi topp seen borom di ko jaamu di ko tatagal di ko sargal loolu mooy diine lislaam nañu góorgóorlu di ñaanal tamit feebar bi nga mooy mbas mi ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla teggi te biir koor weeru koor lañ nekk nañu respecté mesures barrières yi raxas loxo yi takk masque yi ñépp ñu si biir jumaa yi di julli di si jàkk yi nañu euh, respecte suñu biir nañu dem di déglu nga xam mooy xutba yi déglu dem di déglu waraate ni si am njëriñ parce que waraate am na solo si doomu jullit da lay defar tey defar la ëllëg mais ku nekk toog sa point ne doo euh, doo julli doo jaamu yàlla loolu dafa méngoo ko koom képp kuy julli rek képp woor war nga delloo ñu tël sa borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne askanu suñu gaal nañu gën a góorgóorlu dañu gën a góorgóorlu que adduna bi yàggatul boo xam ni boo xoolee jeex na presque lan la fi des jaamu sa borom mu jéggal la foo xam ni ak jëm ñun ñëpp a gën a jëm ëllëg aljana mais nañu gën a góorgóorlu liggéeyal suñu borom euh, ma doon tuwaat di julli di woor am na ñoo xam nag mënuñu woor mais yam ay gàllankoor bu fekkee na nga tawat moom mais da nga ci ay mag bu jëm dara jotu leen léeg-léeg ñu ngi day benki jenki naan sama biir day sama asam sama euh, sa bopp day métti sama nangam-nangam loolu sa bopp ngay nax borom adama la gën a bu fekkee nawet taw moom yàlla dina la compagne bu fekkee dara jotul la war nga mën woor dellu sa borom nañu gën a góorgóorlu koor bi ngi dem te mooy tey euh, juróom-benneelu fan euh, askanu suñu gàll Sénégal euh, dëkku diine la Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi nañu dimbali ko suñu biir yàlla ka tax nañu tappa xol yi defaraat ci jikko yi toj suñu xol Euh, fonk suñu diine fonk suñu lislaam si koor bi di woo ñépp ñu góorgóorlu yàlla wàcce fi ay xewal yàlla jële fi feebar bi ñaan yàlla kooru kooru ren kooru 2021 bi nekk koor bu jaar yoon koorum jàmm koorum xewal koorum nattange ma ni nañu gën a góorgóorlu buñ ko defee rek réew mi dina gën a jëm kanam di woo suñu kilifa diine yi Euh, ñi woo ànd ak ñi woo taalibe yi ñu gën a delluwaat seen xel si yàlla danañ moytu aussi fitna yi euh, li amoon fan yële passé nag Sénégal bi mooy début du mois de mars kenn ku yàlla moo am fii gis ngeen ni am na lu yàlla def na si mu sedd ngir kilifa diine yi ngir yenn euh, kilifa yi nga xam Sénégal def nañ fi ay jéego yu am solo biñ la ni delluwaat seen xel indiwaat jàmm loolu mooy sunu gaal. dañu gën a góorgóorlu di war ndaw yi ñoom tamit ñu euh, topp seen i borom topp seen i waajur loolu topp seen borom topp seen i waajur te loolu mooy ndaw ndaw mooy ëllëgu réew am nañu yaakaar suñu ndaw yi euh, président mu leen di gëstu ñu ngi créé ñu wàññi créé ay emploi da ngeen koppal topp toll si quatre cent cinquante milliards njiiti réew mi euh, du su kàddu nee na fas yéene jàppale ndaw yi ñu am xëy jàpp leen si projet loolu mooy réew loolu bu ñu ko defee Sénégal ndaw yi ñu am benn problème nga xam ne ñoo seen i liggéey gis ngeen université amoon na fitna fan yii passé ba benn étudiant fat fa euh, naroon am euh, ay jàmmarloo diggante ñaari xeet yooyu kenn ñaanu ko yàlla diggante Joola séeréer te ñoom ñaar ñoo bokk ndey bàyyi kenn ñaanu ko yàlla Sénégal ethnie yëpp lañ muy Joola bi muy séeréer bi muy pulaar muy wolof bi ñëpp ñoo ñoo ñoo bokk ndey ñoo bokk gis ngeen ni réew yi tàkk. mu jël kaw war a def huit cent mille membres moo leen boole benn euh, ñaari xeet ututul si kenn ñaari yàlla yooyu am Sénégal bi ak fii si sous région bi euh, fépp koo dem euh, nit ñaa ngi nit ñaa ngi war a nit ñaa ngi bokk nay bokk bay di xew Niger di ñaan yàlla suñu mbokku Niger yi ñu ñu bàyyi teg ñu bàyyi fitna yi teg ngànnaay si weeru koor bi ngir yàlla ah démb Mali barki démb juróom fukki fan Niger diggante weer bi fay far nañ fa que ay euh, ëpp na juróom-benn fukki nit loolu dafa métti si réew Afrique suñu mbokku jullit yi suñu mbokku nigérien Mali partout nañu delluwaat suñu xel te teg ngànnaay yi si weeru koor bii di weeru jàmm di weeru nattaange leen gërëm leen sant te ñu gën a góorgóorlu euh, àdduna bi nag yàlla waxu kenn dara nañu tey te ànd dal bu ko defee rek jàmm dina sax. muy Sénégal muy partout en Afrique mbokk yi leen gërëm leen sant ñaan yàlla euh, atum deux mille vingt et un bi ci weeru koor bi yàlla defal ñu nattaange defal ñu sutura defal présentation bi Cheikhou Sakho moo doon gëstu bés bi ci weeru koor bi jàmm